voilà tay dafa yema won ak zone bi nu nga euh, de la planète manam ba aduna bi gëna a set euh, gëna euh, donc ñun association bi environnement ñu ne kat yoon la ñun tamit euh, ñu def suñu participation si bis boobu nga xam ne dañ ko jagleel adduna yëpp donc ñu gis ne diwaan bu mel ni Lac nga xam ne tey jii dafa menacé wu si li nga xam ne moom mooy euh, mbalit meeg plastique meeg mais wàllu urbanisation bi anarchie bi donc laaj na tamit ñun suñu association jóg yëngu si euh, jéem a fexe ba lagros tamit changé xar kanam si wàllu taar si wàllu rafetaay wala tamit si wàllu gàncax parce que dañu gis ni li fay judd si ay ay bâtiment dafay xaw a bëri lool néew si li nga xam ne moom mooy wàllu végétation beeg garab yi motax tax nag suñu association bu jógoon tey euh, pour jëmbat ay garab lu melni ay filao ak ay koko euh, si li nga xamni moy mooy xar kanam kon pour jëm essayer euh, soppi tuuti xarkan kanamu lagros ni mu mel won si ñaawteef ñu gën ko rafetal tey jii boo xoolee bisu tay bi dañu fas won am ñaari groupe benn bi ñëw si walu lac bi benen bi dem fi nga xamni mom moy mooy si wàllu géej gi si plage bi ak si dune de sable li nga xamni ñom ñom neen ñoom ñoo ceinturé lac bi mais malheureusement à chaque fois dañ nuy arrêté bu ñu fekkee dañu bëgg def li nga xamni mom moy mooy reboisement sur les dunes de sable parce que fofu dafa bëri ay problème foncier te foofu normalement

formou isso no nga xam mooy nekk euh, maire commune de Niaga Tivaouane nga xam sax tay jappalé lañu parce que tay ji moom jox bi les heures pour pour nettoyer mais tamit du ñu wax ko mu gën a góorgóorlu pour ñu gëna andalo préserver l'environnement du Lac Rose parce que ñoñu waru ñu ko mëna tabax sans son autorité tay ji da nga am zone yo xam da ngay dem gis fa ay piquet ci biir ndox mi alors ñu doon ñaan état du Sénégal bu fekkee ñun ak commune bi muy le maire bu fekkee mëna ñu délimiter Lac Rose avec des bornes comme yi mu amee si yeneen parc naturel yi ay bornes ak ay tableaux de signalisation yo xamante mëna mën def réserve du Lac Rose xam ne waaye ku fay nar a samp dara wala nga fay